Euh, alhamdulilah rabbil alamin beneen yoon euh, xam naa li ñuy wax rek duñu tontuwanteeg ñi nga xam ne ñoom dañoo dugg di saaga ak di def seeni yëf dañoo taamu saay boo xamee ne ñu ngi leen di maanaam indil xam-xam ñu jaxase mbir ci indi ay saaga waaye loolu duma leen ci tontu ndax euh, waxkat ba dafa waxoon xikam bo am solo dafa waxoon ne laa tunaaxis xabiyan li anna annaas lan yaarifu ayyukuma gabiyun mu ne bul weerante mukk ak dof mu ne booy weeranteeg dof nit ñi ñoom duñ xam kan moo ciy dof te dafa am yoo xam ne ñu ngi ci groupe bi xëy na seen ak njàng soriwul seen ak gëstu soriwul bu ko defee booy weerante dañuy jàpp ne ñii ñemelaa saaga wala ñemelaa wax dëgg parce que dañoo nekk ci dëgg eh, waaye gis nga ñii seen diine ji comme ni ma ko waxee rek mboolem masaayibul arbaa muy masabu imaamu Malik muy masabu Ahmad ibn Ambal bi nga xam ne ñoom ci la askane seen boppu muy mazhabu imaamu Shafii muy mazhab al anafiya ñoom ñëpp buñ delloo ci seen téere yi dañuy fekk ne ñoom xam nañ xamle ne diine wahaabi mooy diine ji gën a bon ci diine maanaam loolu tax sax boo xoolee am na benn boroom xam-xam bu mag eh, bu buñu bu ñuy tuddee E Saoud Mouhamed Abdourahman Assabaani dafa liggéey benn téere bu mu tuddee alwahabiyatu diinu jadid maanaam alwahabiya diinun jadid maanaam wahabiya diin diina ju bees la ñeel fan ñeel saudiya maanaam alwahabiya diinu su diinu saudi jadid mooy diinaay arabi saudi ju bees mbokk yi e, dafa am e, benn borom xam-xam bu mag bu ñuy wax Cheikh Ahmed Zeyni ad Dahlan nga xam ne mufti yoloon ca Makka E, ci jamono osmaniya yi dafa wax wax ju am solo dafa wax ne Muhammad ibn Abdul Wahab ci tàmbalik mbiram dafa bokkoon ci ñiy sàkku xam-xam ci madinatul munawara mu ne waaye baayam ak mbokkam baayam mooy Abdullah mi ak mbokkam e, lim namm ci mbokkam moomu mooy Suleymaan danañ ci ñëw mu ne ñoom ñaar ak mbooleemi sëriñam dañoo amoon firaasa ci moom ne sa yakunu minhu zayqun wa dalaal dana am jeng gu mag bu nekk ci moom ak réer gu nekk ci moom Muhammad ibn Abdul Wahab mi nga xam ne mooy sëriñu wahaabiya ngir lañ seetlu ci ay jëfam ak li nga xam ne loolu lañ seetlu ci ay waxam ak ni nga xam ne noonu lay xuusee ci yenn masala yi te jàngut ko te loola danañ ci indi ay leeral ndax bokk na ci li nga xam ne moo taxoon baayam mere ko mooy nanguwutoon a xuus ci fiq comme ni ko baayam bëggee woon te bàyyam boroom xam-xam bu mag la woon nit nag lu mu jàngut bëgg caay werante loola xam nga ne daf cay wax lu dawut dëgg loolu moo waral mbokk yi ngeen gis ne ñii nga xam ne ñooy wahaabi wahaabi wahaabi yi ne tey wahaabi yi ngeen gis muy Moustapha Cissé yéen ñëpp dëkk Sonkoroon xam ngeen ne jàngut waaye gis nga tey dafay jéem a weerante di dugg ci ilmul xadis naan xadis bi wér na wala wérut di attaqué boroom xam-xam yi te yéen ñëpp xam ngeen ne jàngut naka noonu suñ mbokk yi nga xam ne tey ñoo nekk fii tey ci groupe bi di saaga ni ki mbokk yi mujj a dugg noonu yéen xam ngeen ne kenn ci ñoom jàngu teel a jàng bokk na ci li mooy que ne maanaam mënuñoo wax dara ci xadis bu wér wala ñu dellu ci benn marja bu wér mën a andi waaye fi ñuy mujj yow rek mooy jàngoo yow njabarkat nga yow saagakat nga yow ku bon nga di la wax lu ñaaw kon mbokk yi loolu ñu ngi ko doon ne ci Muhammad Ibn Abdul Wahab mi nga xam ne moom mooy sëriñ seen sëriñ Eh, ki nga xam ne mooy Ahmad Zeyni ad Dahlaani wax ju am solo la wax ci moom wax na ne maanaam ki nga xam ne moom mooy Muhammad ibn Abdul Wahab ci ay mbiram ay boromi xam-xam teel ñoo xam loolu ci moom ndax bokk na ci ñi nga xam ne dafa doon saxal ne li ñuy tuddee tawassul loolu ak yéeféer la képp ku ko def rek yéeféer nga maanaam képp koo xam da ngaa tawassul ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam yéeféer nga bokk na ci sax li nga xam ne tay ñoom moom ngay gis ñuy tuddee nit ñi mooy alxuburiyun daa ngeen ko dégg ñu ne xuburiyun mooy ñi dem ci bàmmeel yi dañuy wax ne képp ku def tawasulu ci benn yenantu rek sa tawasulu googu nga def la muy jir ci yow mooy ne yéeféer nga bokk na ci ay xutbaam yi nga xam ne doon na ko def te dinañ ko indi daf daan wax ne man tawassala man tawassala bi nabiyin min al ambiyaai faqad kafara képp koo xam ne da ngaa def tawasulu ci benn yenantu yow yéeféer nga ba emuñ ci loolu dañuy wax ne ku tawasulu ci anbiya yi wala nga tawasulu ci saalihiina yi yow yéeféer nga yemut ci loolu seen gëm-gëm dañuy wax ne même bu fekkee da wax ne maanaam da jël mbir nga wéet ko ci dara njëriñ la yow yéeféer nga wala wa ala sabilil muxtar ah, dégg nga majaasul aqli ndax masalan nga ne nafaa ni hada dawa garab gii dee bi ma ko naanee jëriñ na ma xam nga loolu bi nga koy xam nga ne njëriñ ci loxo yàlla nekk waaye boo feebaree dem di jëli ay comprimé xam nga ne comprimé yooyu mënuñ laa faj waaye yàlla mooy faj waaye nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo wax ne yàlla def ne bépp jàngoro yàlla defal na ko dégg nga li nga xam ne moom mooy ab saafara ñoom dañuy wax ne boo defee loolu yow yéeféer beneen bi tegee dafay dañoo bokk ci seen gëm-gëm dañuy wax ne képp koo xam ne da ngaa uute ak Muhammad ibn Abdul Wahab rek yéeféer lii nag nga xam ne euh, euh, maanaam ñoom ñoom gëm nañ ko loolu gëm-gëm bu yàqu la loolu moo tax sax borom xam-xam bii nga xam ne dem na ba wax ne Muhammad ibn Abdul Wahab dafay jël aaya yi nga xam ne dafa wàcc ci yéeféer mu koy yen ñi nga xam ne ñooy julit ñi xoolal laaya bii wa man adallu mimman yad'u min duni illahi min duni illah man la yastajibu lahu ila yawmi alqiyama wa hum an duaihim xaafiluun aaya bi ñoom dañuy wax ne ñi nga xam ne ñooy siyaare bàmmeelu yonent bi di ci yaakaar ak njëriñ wala dara wala ñuy siyaare bàmmeelu wëlli wala yonent bu mu mënta doon ñooña ay yéeféer lañ aaya bi ci ñoom la wàcc suratul Ahqaaf loolu xam ngeen ne njuumte lu rëy la wala tad'u min duni illahi ma la yanfa'uka wala yadurruka fa in fa'alta fa innaka idan min adh-dhalimin ci suratu Yunus dafay wax ne laaya ji daf koo wax ne ci jullit ñi xam nga laaya yëpp ci yéeféer la wàcc ñiy jaamu ay xërëm waaye moom dafay wax ne ci sufiyanke la wàcc dafay wax ne ñiy def tawasulu ci yonentu yàlla Muhammad la wàcc dafay wax ne ñiy def tawasulu ci nit ñu baax ñi la wàcc kon ci yàllaay yu mel nii la doon sukkandiku te moom ca xutbaam ca maanaam dëkkam waxoon na wax ju mel nii eh, beneen bi boo demee ci maliki ci seen jëmmi bopp ku mel ni ahmad saawi al maliki ci taaliqa bi nga xam ne def na ko ci jalaalu diin ci lim yaxal mu wax ne ci laaya ji ne xawaarij yi eh, ñi nga xam ne dañuy jël maanaam yu bari di ko taawil rawatina ay aaya ñuy jàpp ci taawil googu ñu koy taawil mu ne wa yastailuuna bi dalika dimaa al muslimin wa amwaluhum ñuy daganal derati jullit ñi di wax na diw dañ koo war a rey te fekk kañ bëgg a rey julit la wala ñu daganal seen alal mu ne loolu moo dafa mel ni lii nga xam ne janoo nañoo moom tey ci ay boromi xam-xam yoo xam ne dañuy taxaw ne ay boromi xam-xam lañ ba noppi dañuy daganal deretu nit ñi ci ay laaya yoo xam ne teguñ ko fenn mu ne ñooñu feeñ ca ardu xijaas ñu leen di wax alwahabiya nga xam ne yaasubuuna annahum ala seyin ala annahum humul kaazibun istaawada alayhim alseytaan fa anzaahum dikra allah ulaika izbu seytaan ala inna izbu seytaan humul mu ne ñooñu di wahabiya nga xam ne ñoom dañoo jàpp ne ñu ngi ci dara mu ne waaye fekk ñoom nekkuñ ci dara lu tax mu ne ñoom ay fenkat lañ loolu tax ku ñu waxaat rek ne la da ngaa mën a fen fekk ñoom ñooy kàccikat yu mag yi li tax mooy saytaanee leen lënk fàtte loo tudd yàlla ba tax képp ku tudd yàlla ñu leen tudd yàlla tudd yàlla ñu leen tudd yàlla dafa xaraam ndax dañ lay tere xadara jumaa te mooy dañ lay tere tudd yàlla dañ lay tere salaatul faatiha dañ lay tere julli ci yonent bi di la tere nga def tawasul ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di la yéeféerloo mu ne ñooñe dëgg-dëgg ñoom ñooy kuréelu saytaane kuréelu saytaane nag dëgg-dëgg ñooy ñi nga xam ne perte beneen bi ci desee mooy mazhabul anafiya ci seen jëmmi bopp ko mel ni ibnul abidin al anafi ci rabdul mu'ta dafa wax ne maanaam al wahabiya ci seen jëmmi bopp ñoom ñooy xawaari yu jamono bii lu tax mu ne wa yukaffiruuna ashaaba nabiyina sallallahu alayhi wa sallam mu ne dañuy yéeféerloo ñi nga xam ne ñoom ñooy àndandoori yenentu bi alayhi salaatu wasalaam mooy ñi gëm yenentu bi di jaamu yàlla ñu naan leen yéeféer nga xam nga tey ku taxaw ne Seydina Cheikh radiyallahu anhu yéeféer la ku taxaw ne tey maanaam mag ñi nekkoon Sénégal yépp ci bidaa lañ nekkoon ay yéeféer lañ kooku dëgg-dëgg mu ngi yéeféerloo ñi nga xam ne ñooy waa kër yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy ñi bëgg yonent bi mu ne nag ñoom li ñuy def dafay tegtale muy mu ñu mel ni euh, mbokki Muhammad ibn Abdul Wahhab yi ñi nga xam ne ñu nga jógee ca Najd waaye ñëw not xaramayni yi commencé nag di wàcc di sukkandikoo ci mazhabul anabila yi mu ne fekk loolu du dëgg ci ñam lu tax lakinnahum irtaqadu annahum humul muslimun wa anna man qaala fa i'tiqaaduhum musrikun képp ku uutee ak seen pas-pas yéeféer la loolu moo tax suleyman ibn abdul wahab laaj na muhammad ibn abdul wahab ne ko yow ponki lislaam ñaata la mu ne ko juróom la mu ne ko yow def nga ko juróom benn muhammad ibn abdul ne ko lan mooy juróom benneel bi mu ne ko man qaala faka fa huwa musrik képp koo xam ne dafa uuteeg yow yéeféer la loola yow bokk nga ci li nga gëm te yaa ngi koy gëmloo nit ñi te lii ki ko wax lii nag rakkam la joo xam ne ñoo bokk benn baay ñoom ñaar mbokk yi mbokk yi buñ demee ba tey eh, gis ci mazhabul xana al anabila yi nga xam ne ñoom dañuy jéem a sukkandiku di wax ne ci lañ bokk boo demee ci la anabila ci makka da nga fekk cheikh mohammad ibn abdullahi najdi al anbali wax ci téeréem bi bi mu tuddee suubul waabila ala darail anabila ba muy tarjuma baayam muy bi muy tarjuma baayam muy baayu Muhammad ibn Abdul Wahab ibnu Suleymaan bi mu koy tarjuma dafa wax ne wa huwa walidu Muhammad saahibu dahwa allati intasarat sararuha fi l afaqi lakin baynahuma tabayun ma anna Muhammadan lan yatazahar biddaawa ila ba'da mawti walidihi dégg nga wa axbarani ba'du man laqaytuhu an ba'di ahli l ilmi am man aasara Cheikh Abdul Wahab هذا أنه كان قدبانا على ولده محمد لكونه لم يرد أن يستقل بالفقه كأسلافه وأهل جعته ويتفرضون فيه ويتفرض فيه أن يحدث منه أمر فكان يقول للناس يا ما ترون من محمد من السر ndax gis ngeen li ma gis ci Muhammad ci xay di ko mottandikoo nit ñi mu ne Muhammad ibn Abdul Wahab uute naag baayam bàyyam daf ko mere woon lool ci la mu doon def ndax na mu bëggee woon mu jàng fiq kon xam leen ne Mouhamadul Ibn Abdul Wahab mii sëriñu mu Moustapha Cissé ak Ahmed Lo ak Mourtada Gueye mii benn toon faqih bu ñuy lim fuqaha yi duñ ko ci boole. boo demee ci masala yi mu def fatwa da nga ko xam boo demee tey ci makka ulama Ubaydullah Baytullah al Haram ñi ngi ko tuddee nga xam ne mooy ibnul faw mooy al Fawzan ibnul Fawza ak ibnul Ben Baas ak al Fawzani ak euh, ibnu Usaymin Eh, ba ci ibnu taymiya ci boppam sax ba ci ibnul qayyim ci boppam nga xam ne tey dem na ba waa màkka ci boppam di gaaral ne buur bii fa nekk tey di gaaral ne mboolem seen téere yi nañ ko lakk génnee ko buñ ko jàngati ñu bari tey ñu tëj leen ci kaso gi li ko def mooy dëgg-dëgg mooy fatwa yi ñuy def nga xam ne eh, fatwa gënu koo bon maanaam fatwa gënu koo ñaaw gënu koo ñàkk tegee ci ak parce que seen sëriñ nag nekkutoon faqih mooy Mahamad Mahamad ibn Abdul Wahab ñaareel bi nekkutoon muhaddis ndax boo demee ci téere bi nga xam ne moom la tuddee tawxiidam andi tawxiid booba hadis yam ci jëfandikoo am na ci hadis yoo xam ne waxuma hadisun daif waaye hadis munkar la wala mawdu mooy hadis boo xam ne fenal yenentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam la te loolu bëri na ci téereem bi nga xam ne mooy téere bi ñu yaakaar mbokk yi beneen bi ci des mooy mu wane ne kon nekkutoon faqih nekkutoon muhaddis kon kenn la woon koo xam ne bëggoon nguur ak daraja looloo ko yóbbu woon ci samp lim taxawal bokk ceeg buur bu am doole kooku dimbale ko ci loola bañ lakk téere yu bari tey téere yooyu ñu lakkoon muy maktab bu mag biñ lakkoon ca makkatul mukarrama maktab boobu moom lañ leen fayee tey seen téere yëpp dégg nga ñu wax ne nañ ko lakk te insha allahu rabbi duñ am ndam mukk ci kanam nit ñi duñu am ndam mukk ci kanam yàlla ndax ay nit lañ ñoo xam ne la ñuy sosal nit ñi ñoom ñoo ca nekk di yéeféerloo ñëpp lii la rayu bii la ci xanaa bi la yi am rayu bii la ci xanafiya am rayu bii la ci maalike yi am rayu bii la ci saafiya yi am kon ñooñu nag bu ñu nekkee Sénégal tey du ñu rey ak coow ba su nit ñi nga xam ne dañoo ñàkk xel ñàkk xam-xam ñàkk gëstu commencé di leen déglu di jàpp ne ñu ngi wax xam-xam ñu leen ciy topp dañ leen di yërëm eh, mbokk yi xam nga lii may wax dafa am benn benn benn borom benn benn borom xam-xam bu mag bu coo wax yu am solo Eh, maanaam ci dimisqa dafa am lu amoon dimisqa ci saam benn noddukat boo xam ne ca jaamiu daqaaq la nekkoon bim noddee ba noppi mu def comme ni yenn noddukat yi def ne asalaatu wasalaamu alayka ya rasulullah maanaam kon dafa ñaanal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci kaw fekk benn am na benn wahabi boo xam ne mu nga woon ca jàkka ja di ko dégg dafa yooxu ca kaw ne hada xaraam lii dafa xaraam hada misle alladi yanka ummahu lii dafa mel ni kuy takk yaayam di ko tëddee loolu jur coow lu ma xoolal maanaam masalan nga nodd ba pare ne salaatullahi wa salaamu alayka ya rasulullah jul jàmm yàlla ak xéewalam yàlla na nekk ci yow yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yow nga ñemee taxaw ne loolu ak ku takk sa yaay ñooyam ci xaraam mbokk yi kooku ndax dinañ ko déglu beneen bi mooy Muhammad ibn Abdul Wahab mii nga xam ne moo sos bidaa bii daan na def xutbaam ci masjidu dariya masjidu dariya ci xutba yim daan def da daan wax ne wa man tawassala bi nabiyin faqad kafar képp koo xam ne da ngaa tawasulu ci yonent bi da ngaa weddi yàlla loolu moo tax ma ne Suleymaan ibn Abdul Wahab laajoon na ko ne ko sartaay lislaam yi ñaata la arkaanul islaam ñaata la mu ne ko xamsa mu ne ko anta jaaltaha sitta yow def nga ko sitta juróom benn asaadis man lam yattabiaka fa laysa bi muslimin hada indaka ruknu salis mu ne ko yow lii ponkab lislaam la ci yow mooy ku la gëmut yow Muhammad ibn Abdul Wahab rek maanaam nekkul julit dafa am benn waaye bu mos a ñëw laaj Muhammad ibn Abdul Wahab daal di ko laaj ne ko waaw Muhammad ibn Abdul Wahab mu ne ko mu ne ko guddi gu nekk ci weeru koor ñaata la yàlla di goreel mu ne ko guddi gu njëkk ga dana goreel téeméeri junne guddi ñaareel ga dana goreel lu ko to ba ca guddi gu mujj ga mu goreel bu toll noonu fulandi ko mu ne ko yow sa mbooloo mi ni mu tuutee matuñ sax boo xaajee kaar bi loolu te yow nga ne sa mbooloo mi rek ñoom ñoo nekk ci dëgg kon ñeneen ñi jullit ñi yàlla di jéggal di leen dugal àjjana ñam lañ léegi nga mu daal di gëlëm xamatut lan la ko war a tontu kon loolu li muy tegtale mooy mbir muñ tegut ci xam-xam mënta dem benn waaye daf koo laaj laaj bu am solo daf koo wax ne ko Muhammad ibn Abdul Wahab mu ne ko waaw mu ne ko su fekkoon ne benn waaye daf laa wax na la gannaaw doj wi am na mbooloo mu takk mu fi nekk maanaam di waaj ngir songu si la nga yebal junne ay nit mu ne ko nag waajoo xam ne koo wóolu la koo xam ne saadiq la indaka koo xam ne ko wóolu la ci yow mu ne la am na kuréel bu nekk ci gannaaw doj wi yow lañ bëgg a songu si mu ne ko nga yebal junnee nga junne junnee nga war dem ngir xool ñooña bañ demee fekkuñ ko dara mu ne ñu dëppaat na la fekkuñ fi dara léegi kan ngay dëggal ndax kenn ki nga xam ne moo dëgg woon ci yow moom ngay dëggal wala junnee nit ñi demoon gis ne loolu amut mu ne junne nit ñi lay dëggal mu ne ko nag la sa oote bi mel dégg nga mu ne ko noonu la sa oote bi mel ndax inna jamia al muslimina min al ulamai al ahyaai wal amwaati fi kutubihim yukadibuuna ma atayta bihi li nga indi yow ay téere yu bari borom xam-xam yi dee ak yi dund yu ci bari dañ ko wéddi ay junnee nit yow nga nekk kenn nit léegi kon yow yaay kenn ki ñoom ñooy mbooloo mi kon dañuy dëggal ne yow li nga nekk moo nekkul dëgg beneen bi ci des mooy euh, buñ xoolee euh, ba tey ci ay baa am ci doxalam ci yëngatum am na ñoo xam ne sax doon nañ dem ba di xaw a ànd ak moom waaye gannaaw si gi bi ñu demee ba xam ne lim nekk du dëgg comme li dal Saoudiya léegi nga xam ne buur bi wax na ne nañ nañ nañ lakk seen téere yi ñu tëj seen borom xam-xam yi nga xam dañuy def ay fatwa yoo xam ne teguñ ko ci diina ndax ñooñu ak ni ñuy yéeferloo nit ñi nañ leen tëj ak mbon giñ nekkee ci biir Saoudiya dégg nga bu ñu demee ba loolu am nga xam ne kon képp ku ànd ak ñoom bu yàggee da nga xam ne nekkuñ ci dëgg dafa am benn waay benn boroom xam-xam eh, boo xam ne dafa dafa ñu ngi koy wax eh, amiru sanaani mu bind téere bi ñu tuddee sabilu salaam dafa wax benn xasida dafa waxoon ci début bi ne salaamun ala najdin wa man alla fi najdin wa in kaana taslimi ala bu'din laa yujda gis nga dafay wax ne yàlla na jàmm nekk ci najd ak képp koo xam ne yaa ngi najd kanaa kon kii bu ngeen xoolee mu ngi mel ni dafay dëggal Muhammad ibn Abdul Wahab ci ooteem bi mu demee ba xam nag ne Muhammad ibn Abdul Wahab ak wooteem bii woote la boo xam ne fitna la ñuy taxawal woote la boo xam ne gëmuñu yàlla woote la boo xam ne ay soskat lañ woote la boo xam ne dañuy oote lu new dëgg dafa wax wax ju am solo def ne rajaatu an il qawli alladi qultu fi najdi faqad faali anhu xilaafa alladi indi deltu naa gannaaw ci li ma waxoon ci najdu parce que li wér ci man mooy ndeke la ma yaakaaroon ci ñoom nekkul ci ñoom sanantu bihi xayran fa qultu asa asa najdun naasi an yaadi alibada wa yastaadi laqad xaaba fihi zannu laa xaaba nasuna wa ma kullu zannin lil aqaiqi li dégg nga yahdi wa qad jaana min ardihi cheyqun dégg nga mir mirbadun fa fa xaqiq fa xaqiq min al ahwali kulli ma yubdi wa qad jaa min taalifihi bi rasailin يكفر أهل الأرض في أعلى عمد ولفق في تكفيرهم كل عجة تراها كبيت العنكبوت لدى النقد gis nga lii ak xasida bi neex xasida boobu mbokk yi boo demee ci téere yu bari andi nañ ko boo demee ci albadru saalih bu imaamu sawkaani andi na ko boo demee ci taajul mukallal eh, bu sadiq xaan andi na ko boo demee ci téere yu bari andi nañ ko ngir wane ne moom gannaaw si dafa wax ne la ma njottu woon ci ñoom nekku ci ñoom ndax kefa feeñ di oote kooku ndeke du du nit ak dara ndeke kooku maanaam ab kàccoor la boo xam ne dafay taalif ay mbir di yéeféer yoo ñooñ suuf ñépp wax ne képp ku ko topp gëmul yàlla mu ne loola lam ci ay tegtal dafa mel ni baytul ankabut te yàlla wax ne ci alquran ne inna ahwanal buyuti la baytul ankabut néeg bi gën a doyee di mooy baytul ankabut mu ne loolu la indi ci ay lay xasida boobu saraa nañ ko dégg nga mu nekk euh, mu nekk saraa bu mag moom moo ko saraa moom ci boppam dal di ko mbiru Mouhamad Ibn Abdul Wahab tuddee ko irsaadu sawil albaabi ila xaqiqati aqwaali Ibn Abdul Wahab mbokk yi bu ngeen demee ci téere booba wala ngeen dem ci raddu ala euh, raddu euh, nu mu tuddee assawaayiqul ilaahiya fi raddi ala alwahabiya wala ngeen dem ci yenn téere yooyu nga xam ne dañuy tontu Mouhamad Ibn Abdul Wahab dañ ci indi leer yooyu kon ñii ngeen di waxat ci groupe bi ci diina ji lañ nekk moo tax ñëpp la ñuy éferloo ñoom dañoo jàpp ne ku àndut ak ñoom rek nekkoo ci dara bu fekkee na wax nañ masala sax nga xaw leen di jege bu ñuy wax ak yow mbokk la ñuy wax ak yow di la ñaanal jàmm comme ni ma déggee mbokk mi di ko ñaanalee Ibrahima Ndaw ba lépp mi dëkk Kaymoor nga xam ne dafa mel ni moom dafa a ànd ak ñoom jàpp ne la ñuy wax xam la waaye su fekkoon ne miinoon na moom Cheikh Ibrahima Ndaw ba lépp moomu di toog ci jotaayi xam-xam tey déglu ak ni mu yaroo ci dëkk bi ñuy wax Kaymoor dëgg-dëgg du taxaw di wax ne ñii xam-xam lañ waaye nag nit soo miinul jotaayi xam-xam amaana soo déggee dara da ngay foog ne xam la waaye ku jàngut dafa neex a nax waaye ñi jàngi ba wari téere yi ñëw toog ñooñu neexu ñoo nag kon ñii seen oote bi du dara du tus ooteeb kàcc la ooteeb fen la oote la boo xam ne dara du ci dëgg képp ku ci topp yaa ngi ci loo xamut te ku leen di déglu yaa ngi ci loo xamut seen mbokk la Cheikh Mahamadou Habib Ndiaye Alkaynori yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu